deuxième tour am naa ci xalaat parce que euh, Macky Sall moom 2012 yàggut fàtte xaju fi Macky lii mu am nii euh, Idriss Seck lii mu am nii ci premier tour yi Macky Sall amu ko woon 2012 te dafa nekk deuxième tour. yaa ngi dégg kon nag sénégal yi bu ñu watee bu ñu leen xañ seen i li génn ci urne yi nañ ko wax. 2012 yàggut sept ans la. donc li mag li Idriss Seck am tey soo ko calculer moom la Ablaye Wade amoon bi doon président 2012 donc li Ousmane Sonko di am soo ko calculer moom la Macky Sall am bi muy dem ak Ablaye Wade deuxième tour. donc 2012 bi dafa boo calculer li Ousmane Sonko am rek li Idriss Seck am ëpp na 50 nangam pour cent mën na 60 60 nangam pour cent kon donc deuxième tour bi moom inco luñ amul amul luñ ci luñ ci yorete deuxième tour day am. xel moom moo gën a xam ndax yow yaa ngi doog gis ci histoire Sénégal ñu def élection. vingt et une heures rek Macky Sall fekkoon ne dem premier tour moom si lay xam ne premier tour la jëm waaye Macky Sall moom moo la gën a xam ne deuxième tour la jëm. jafe-jafe dina am parce que sénégalais yi génnee massivement dem wate ji bu taux de participation bi nekk 61 pour cent te 2012 mu nekkoon 51 pour cent kon sénégalais bëgg nañoo voté bu ñu génnee massivement wate ji nag léegi liñ voté nga bëgg leen a xam seen am nga i bët. boobaa lu ci am mooy dem na deuxième tour gagné na dem deuxième tour convaincre Sénégalais yi buñ ko falee ñu xam ne moo ko fal parce que Sénégal loolu nga xam bu dee faluñ ko mais bëggee daxas carte gi nii nag bëgg a bëlëf bëlëf pour am deuxième lépp lu ko dal moom moo ko teg. Macky Sall dafa tëj Karim Wade ñu ne day tàkk mu tëj ko affaire yi tàkkul mu réussir quoi mu tëj Khalifa Sall dara xiwut mais bii du affaire Khalifa Sall du affaire Karim Wade peuple bi ñoo voté li peuple yu voté li ñu joxe mooy majorité bi mooy opposition bi lañ àndal du affaire Khalifa Sall du affaire Karim du affaire peuple la su demee nag ba bëgg foqaati li peuple moom peuple bi mooy wàcc rek. Abdoulaye Wade def na fi lu nekk ci Sénégal mais ku am démocratie la heure bii 2012 avant heure bi nee na xamal na gis nañ chiffre xam ne deuxième tour am mu am honnête wax ko deuxième tour bi ñu demee deuxième tour ngoon nga. ba ñuy joxe dépouillé ba mu dee ba dee vingt et un heures trente Abdoulaye Wade woo na Macky Sall félicité ko Sénégal loolu la xam Abdou Diouf loolu defoon 2000 Macky Sall na accepté deuxième tour bu ñu demee deuxième tour Sénégal yi génnaa massivement wate bu gagné fali la xam bu gagné wut parce que moomu ko ay carte moo ko faloon ay carte moo koy fal Sénégal yi loolu lañ xam bàyyi nañ xeex léegi nañ respecté Sénégal yi génn voté daal loolu laay